da ce nekk nag mooy je crois que li nga xamante ni moom la doyen si wax moom dafa tënk lépp loo xamante ni dafa war a doon les préoccupations et les la la préoccupation euh, de de retraités uh mm-hmm. -huh. en tout cas du du du côté du euh, du privé parce que comme ni nga ko waxee sànq xëy na suma doyen añ ñoom am nañu loo xamante ne ni état bi daf leen ko cëralee. mais ci wàllu ñun ñi nga xamante ni nous sommes dépendant de l'IPRES on ne dépend de qui que ce soit sinon que de nos qui sont de cent francs par mois. cent francs ngeen di la ñuy couper à la source ci cent francs yooyu su fekkente ni dañu ko couper à la source ba pare di ko def reverser entre ces deux associations la loolu la ñuy war a mun a sukkandiku pour di war a mun a fay seen siège fay seen permanent di war a mun a def aussi ay activités yoo xamante ni bon sa va quand même dans dans le sens de ce que l'on appelle la prise en compte des préoccupations de des des noonu daal laa ko war a mun a tënkee di wax nag ni. damay reprendre rek li nga xamante moom mooy li doyen si wax léegi gis nga retraité boo xamante ni danga retraité ci privé antis bi nga xamante moom ngay su fekkente nee nañ la ne ni benn at sax moom moo la dese pour nga dem. Mhm. pour nga dem retraite. Mhm. su fekkente ni da am tension wala nga am diabète wala nga am ki na la leer ni. Mhm. loolu yëpp. dafa yeewu ci say biir mhm. dundin mhm. pour mu war laa war a mën a jox benn xayma boo xamante ni xëy na moom mooy bii gën a semple ñu war a ko war a mën a comprendre am na que ni ni nit tey ngay war a mën a liggéey ci benn entreprise mhm. nga war faa war a mën a nekk un cadre ñu lay war a mun a fay par exemple la mettons huit cent mille ou bien un million sax si tu mm-hmm. mais du jour au lendemain bés boo xamante ni dem nga retraite ba ñu ne calculer la say indemnité de retraite pension ba ngay jokk a jot suñ la ko joxee première question ba nga xamante moom ngay posé wu moom mooy est-ce que ñiy juumuñu mm-hmm. wala est-ce que ñiy yabaatewuñu mm-hmm. parce que système bi moom moo tëddoo moom moo tëroo noonu juumuñu wala yàpp dañoo yabaate maanaam comme ni ma la ko waxee léegi suñu lay war a mën a fay huit cent mille que tu te retrouves simplement avec une pension mensuelle simplement d'ordre de cent mille francs gàpp boobu nga xamante ni daf ko kii te pourtant charge fix yi nga xamante ni moom mooy yay sa yos tey dara soppeeku ci dara soppeeku ci mm-hmm. et pire encore bés bu yàlla sàkk nga gis jafano euh, jamono di gën a jafe lépp loo xamante da nga ko doon jëndee dërëm tey nga war ko war a mën a jëndee ñaari dërëm wala ñetti dërëm wala ñeenti dërëm te pourtant yow am am ba nga xamante ni xëy na moom nga daan am di korkoral pour di war a mun a jafandu loolu dafa effondré wu ba nga xamante ni yow sa jëmb plat fi mu ne fii euh, yaa ngi koy tudd léegi danga nga ne ni dund wér yàlla mhm. ci loolu nga nekkee ah dafay doon nag loo xamante ni euh, borom kër ya nga xamante ni dañoo doon des retraités du privé jafe-jafe ya ñu nekk dafa xaw a doy dafa xaw a doy parce que retraité boo gis tey lu bon bon bon bon bon bon kër ga nga xamante ni yaa fa nekk lu bon bon bon bon wala lu mu néew néew néew néew néew aw am na ay fukki bakkan yoo xamante ni dañ fay yeewoo te fukki bakkan yi nga xamante ni dañ fay yeewoo tey ji ñooñ ñëpp dañoo nekk à ta kon non seulement charge boobu mu nga fa mais kon ni ko waxee sànq aussi moom moo di ni charge fixe yi nga xamante ni mënu laa teggeeku loolu yëpp yow yaa koy war a mën a yenn su la yàlla baaxewul nga war a mën a am kër goo xam ne yaa ko moomal sa bopp nga nekk sous le régime simplement de la location ak problème yi nga xamante ni moom mooy gravité tey jii ci wàllu affaire location on est passé du simple au double pratiquement nga ne danga nga ci da koy war a mën a fay avec une portion dérisoire da ngay war a joxe dépense au quotidien fay ndox da ngay war a fay ndox fay courant faj mi ñëw faj mi ñëw ak leneen ak leneen mhm. te sa am-am ba nga xamante ni moom nga daan am barki démb ak démb déjà que ni loolu sax doyu woon pour nga kii à plus forte raison nag boo xamante ne ni ton pouvoir d'achat s'est effondré mhm. ba nga xamante ne ni tey jii euh, li yàlla xam doy na mhm. kon dama naan ni ni retraité yi ñii nga xamante ni dañoo ngànk institution bi ñii nga xamante ni dañoo doon nos autorités de tutelle war nañoo war a mun a geesuwaat ba pare ñu jéem a seet yan paradigme la ñu war a mun a teg pour ñii nga xamante ni dañoo doon les retraités en particulier mais les personnes âgées en général. Hmm. ñu war cee war a mun a gisaat seen bopp. d'accord la preuve ma daanelee foofu moom moo ne ni que ni tey fi ñu toll fii tembe foo tourné yaa ngi dégg ñu naan la ni on a établi des programmes pour les femmes. Hmm. on a établi des programmes pour les jeunes. Hmm. mais ba heure bi ñu toogee fii di wax on m'a pas encore présenté man personnellement ak ñi nga xamante ni xëy na ñoom ñoo ñoo ñoom ñoo nekk ci suñuy euh, suñuy âge. on ne nous a pas encore présenté un programme boo xamante qui prend qui prenne en compte la préoccupation des personnes âgées en tant que telles. loolu nag lu ñu war a seetaat la.